dégg nga sëriñ bi ñëwoon wax ci seen kàddu daf ma wax wax ju ma neex bés boobu moom àdduna bi nekk moo tax ba léegi taalibe yi dañu yaakaar ne mbir yi ci ay pexe déedéet mbir yi ci ay itte la rek soo amee itte rek dégg nga jaar ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass jërëm nga jox lu nga jox lu raw sëriñ si waaye fi ma bëgg a dugg pour jox sëriñ si mooy dama ne juróom yii la bàyyi dimbali koo woon te képp kuy taalibe ci bàyyi xel xam ne sa dimbali gi sa biir ginnaaw ba sëpp woon xam bàyyi imaam billaahi bàyyi gëm yàlla bu lépp bokk na ci li ko dimbali ma xam maarifatul yaqiniya xam yàlla bu wér mahabatu rasulullahi bëgg yonent amul daye dégg al isnu ndigal ko jóge ci xadara yàlla ba dégg wal ixlaas ak rafetal ak sellal ittee lim xam ci boppam moo ëpp li nit ñi xam ci moom. Ah. xam nga kooku rek njëriñ loolu xaasire képp koo leen gis mu doon borom ittee wallaahi lim xam si boppam moo ëpp li nit ñi xam ci moom moo tax chaque jour naan bëri na dem. li mu ñëwaat sëñ bi lu muy def nii. te sëriñ bi dafa xam ci boppam loolu xam na ci moom. yeeg yu bëri waaye dama bëgg a tëb foofu rek ndax euh, suñu kilifa yi mën ko mottali moo tax bàyyi personnalité himma amoon na ci moom ak ihtimaam dégg nga ihtimaam baaleegum bi diini wa xalee muslimin bàyyi nekkoon na lu wér ci moom xam ne moom ku dul moom doo dimbali islam ku dul moom mujaddid la woon booy fàtte sama commencement mujaddid la woon te mujaddid moom mën nañ ko définir ba nga xam ne El Hadj Ibrahima Niass mooy mujaddid dégg nga daan na dimbali tariqa daan na dimbali diine mais ci xam-xam la ko doon teg dégg nga daan na itteewoo jullit yi seen mbir ndax xam na ne moom ku dul moom dimbali diine si histoire lu euh, ko xamante ni euh, Jamal Abdou Nasser ak guerre ba si histoire. koy tontu dama ne ko sa sëriñ dafa xam ne du moom moo tax musul wax ne ma dafa honnête mais El Hadj Ibrahima Niass dafa xam ne moom la moo tax mu ne man la ba pare wut ci àdduna bi ma rek ne kan moo ne du man yes xalal ñëpp la mu bàyyi ne fa indi moo ko daaw ñëpp daaw ala kulli musaab lépp lu nit di nangu jiitu naa ci il est sûr de lui lépp lu nit di nangu ci jëmbam ji bàyyi nee na jiitu naa ci il est sûr de lui lay jubal ci ki est sûr de lui loolu takkalee ko ki est sûr de lui ndax xabaar yi muraad yi xam nga ay yoon na si wala xaj muraad mu laay fiqal ki rek fiqal ki yoon la baa yoon kon baa nee na li ma def li ma doon loolu noonu moo ma moo ma bëggaloon boppam balaa may xam bay nekk kon famille na war a tur lépp lu ñu ci islam wala ci tariqa wala ci islamu suufi wala ci insaniya man bàyyi kon firnde bi moo tax nag def na ko Serigne Sall yi toog def nañ ko li mu wax ne lépp mën lañ dugal ci si lépp mën lañ fay amee Serigne Sall yi toog borom xam-xam yaa ngi toog mën leen ubbi dul jeex foofu dégg nga bàyyi moomu nag si boppam Serigne damay tëj ndax noonu la damay tëj xale yi Dakar yi laa bëgg a wax kat mooy bàyyi di si pour muy tëj ndax yéen ñëpp xam ngeen bàyyi ci seen deret gi lay dox mais ñu amul chance pour xam bàyyi pour ñu bàyyi ci diine ji benn. beneen beneen sujet la. waaw waaw damay tëj damay tëj damay tëj il est sur le bi ba tey ci laa nekk ndax benn mooy ku taxaw ne anal mujaddidu li kulli man ahdathahu loolu sujet la. waaye ku ñëwaat tamit ne dégg nga fa nit ñi ne wala kullu wala kullu maa loolu il est sur le bi waaye wala tuuti xas yi fii mu am suubahu loolu yëpp sujet la mais dafay tegtal ne il est sur le bi mais li ma bëgg a tëj. mooy bu leen fàtte ne yéen Cheikh Tidiane lay tëri dafa waxoon wax du am solo mu ñëpp xam ne mooy góor taweti ñëpp na ko Cheikh Tidiane xam ne kii dundam dafay jeex ñu laaj ko seen bi ginnaaw mu mu ne sama ginnaaw dana am ku mën a jëri jaam yàlla yi loolu laa ne processus la prolongation Cheikh Tidiane doog wax ne am na ku mën a jëriñ sama ginnaaw ñëpp xam nañ ne Ali Harazimi la jox ko ñoom Ali Harazimi génn àdduna comme ni ngeen ko jàng bàyyi su wax ci sirru ak bara bàyyi wax ci yeneen jotaay yu ma liiramul bàyyi mu ne li ñu nangu ci Ali Harazimi la jaar bu xeebu fii waaye li ma bëgg a indil ngeen laa ko mooy ne ko jàng ko da nga yëg foofu su tëyee da nga xam loolu sëñ kaza kaza ko ni mu jàng ko génn àdduna bi mu génnee àdduna nag xabaar bi àgg mu ne fa taxallihi asxaabuhu waa ja dal na ko waaye ñamu àndal foog mel ne daal de ñu suul ko te deewul waaye Cheikh Tidiane dégg farlu la sami'u minhu uluman ak tadlisa parce que li may xool mooy excité may continué dégg nga law lam yatfarluhu la sami'u minhu uluman wal ma'arifa wa asraran mimma la